ñoo ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko teewaat nag déwén di sant nag ñëpp ñi nga xam ne dañoo teelu woon ndax ñun vraiment mënuñu leen fay yàq seen temps ndax ñun ñu ne ñu def suñ kéemte lay kàttan mhm. def lii pour béggale leen lu ci yàqu na ngeen ni ko jéggal lu ci yiw nañ ko bokk jërëjëf sama ah kon bokk ñu leen di sant di leen ndax danon gi ñoom ñoo ñu gunge ñii wax dëgg yàlla ñoom ñoo tax jooyuñu dara ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ni nag ñun ci lii rek lañu mën a dox ci lu baax bu amee yàqu-yàqu ñu ngi jéggalu lu ci ñaaw it ñu ngi jéggalu leen lu ci rafet jël leen yéen yéen ko moom te it fii ci kanam tuuti dinañ leen indilaat rek yeneen yafeer yoo xam ne yu doy waar meew mi nag di leen ko naan buy jooy bul yéeyu dama indee leen ko naan moo koy naan da ah ma bëggee jooy jooy ndax dara gi ah café bu neex gàngoog mhm. teranga tàng jëpp ànd ak bërëg bër mayonnaise thon ci teranga dong la nekk boo ko dee sa xel day day day nàcc da ngay am njariñ kii mooy teraanga sant nañu ko gërëm nañu ko mhm. jàpp na ci bis bi <laughs> ñu ngi remercier aussi euh, waa Villeneuve ñu ngi leen di remercier bu baax ñoom tamit jàpp nañu ci liggéey bi bu baax ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm te di leen wax euh, à merci man moom wax dëgg yàlla fans yi rek laay gërëm amuñu lu dul ñoom gis nañ commentaire yu positif yi gis commentaire yu négatif yi ñun loolu moo nuy dundal ba tax na su suñuy ñëwaat dañuy changer lu bëree bëri li ngeen ñu wax ni bëggoo leen ko dootoo leen ko ci gisati li ngeen bëgg ñu yokk ko waaye di gërëm artiste comédien yi si joué yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di gërëm équipe technique bi nekkoon ci ginnaaw yëpp ak ñu si jàpp si ma gars yi ñu ko waxee Dano Café Teranga wuyu sama tur Gueye Teranga Villeneuve ñoom ñëpp ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen sant di leen jox très bientôt comme ni ko gaa yi waxee gaa yi daal. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee woon rek. marhaba moom muy jullit ilal ko <laughs> nag. boo ah. nga la eh, moom. man maa moom kër gi. man dama yooyu dem de. tonton maa ngi tuub. tuub nga fu jar a tuube. baal naa la. daa bëgg na nga ñëw kër ga. waaw ah ga du ma mën def. ah. yegg si si leen yegg si yow ñëw toog imam mayal tulaay mu toog maaleykum salaam kii du jéeme yow kenn ak kër waaw ñëw ñu jéeme na ngeen def na ngeen def xam nga waxoon na ko waaw doo def bul toog temps bi na yéen ngi toog Thank you. mu toog. mau, waxoon naa mau. mu toog. maa ko mu toog. man maa ko mu toog. dama ni ko Mau toog. man maa ko mu toog. nga kontaan. moom moo ma wax ni ma bi jublu bi njëgal bi jógal nga dem fay. boobu moo na. yow bu soo baa yàgg yooyu. yow moom li ñuy def du ay jàng wu. <laughs> acca waaw parce que kii boo may reetal loo acca eh, sama kër la ci biti. dinaa génn seen kër seen jàng yi law yi. ci biti yow bu ma wax day jëkk. ko daw ba moo xam ko ah.